loolu moo leen di gën a may li nga xamante ni moo di assise ba ñu bëgg foofee ci assemblée nationale nee na nag donte ni nag référendum ni moom euh, loolee mooy gën a kuta ku sonnoon di sëlëm doo set ku sa wujj di sëlëm doo set Abdou Latif wujju wujju ñi fi toog la lu mu leen digal nañ def contraire kese li ma gëm mooy buñ demee dañuy gagné plus de cent députés dañuy imposer seen suprématie mais fii lañ dem dégg tam ay nit yu critiquer ni opposition waruñu ko opposé rek pour la forme dañoo war a di proposer def ay propositions yu constructives est ce que du Abdou Latif Coulibaly tamit ci sens boobu la nekk. nangu na mais man dama gëm ne ndëgg sërëx la Abdou Latif waxul pour proposer wu noonu. opposition ki s'oppose une opposition qui est responsable d'accord mais pas opposition boobu noonu nga xam ni dafa bëgg nu mu la tegee ndëgg sërëx ba yow pouvoir bi doo am doo asseoir sa pouvoir bu baax a baax a baax man loolu laa gëm Mm-hmm. Mm-hmm. assemblée nationale euh, cheikh bi député yi. daje waaye bëgg jël ay tappalekat ay profiteurs ñu nguuru ci ci mémoire victime yi loolu du fi am de gis nga projet bii coalition Diomaye bëri na ñoo xam ne. bi Pastef di opposé wu dañ ko doon dénoncé di wax ne du nii la ñuy opposé wu bi ñuy tëj Ousmane Sonko musuñ ci wax man bëri na ñu ma bokkal débat ñu taxaw di ngañ ne Pastef di opposé wu di dëggal li Macky Sall teg coalition Diomaye moom format bii ah jamais au plus grand jamais ñu yóbbu leen assemblée dénk leen loolu kañ moom sama tànk tubay laa ciy xar. moom. cheikh bi tasaaroo dañ koy tegaat rek tasaaroo la tasaaroo la nar a indi de. waaw man coalition parce que c'est sûr que ne ñu bëri ñi nga xamante ne fu mu ne xamuñu fu ñu leen di dugal. dañuy xaar tey ñu dissoudre assemblée ngeen ñu leen dugal ci liste yi. dama jàpp dañ ko waroon tas bu yàgg coalition yàgg lañ ko waroon tas. mais kuñ mais coalition Diomaye Cheikh bi tas nañ ko tey ji mooy frustré yi bëri na ci mbedd bi. nga dégg ñu jug naan waa ñun ñoo ñun ñoo jàppale Diomaye ba mu gagné. dara yow nit koo tax tey ji mu accédé au pouvoir. laaj leen kañ leen jàppale bi ñu leen bloqué ñu ne Diomaye candidat la ñu xam ne Diomaye day gagné élection yi boobu la ñuy indi seen valise teg signé man mujj coalition ñoo ay ree lañ ma. am na sax ñu nga xamante ni def na leen ministre te ba lépp sootee la ñuy doog waaw mais boo xam nga. kon ñoom seen bopp loolu posé wu leen problème. mais xam nga xam nga ñooñu. am na Diomaye et Sonko loolu posé wu leen problème. non xam nga ñooñu am na lu ñu apporté. seen image bi lépp sottee bi ñu ñëwee am na ñun mooy waaye koo xam ne indiwoo nit indiwoo mbooloo indiwoo xam-xam ñetti nit toppuñ la waaw yow. cheikh bi. Mhm. député yi ñu ngi jëm ci soppite li nga xamante ni moo di règlement intérieur bi de président euh, groupe parlementaire yi waxtaan nañu. dafa war a ñëw ne te lu ni lu ni mel si c'est acté rek xam nga ni kon DPG bi moo ci topp d'office. léegi lii lépp pour lii donc da ngay xam ne ñun dañu doon fontoo rek da xam ne Abdou Mbow ñi mu àndal dañu doon fontoo rek li ma gëm mooy ñoom dañu yàqamtiwuñu DPG bi gaaw parce que li état bi yor ci ñoom bu ko tegee ci espace public jour boobu la ñuy enterré man loolu laa gëm ñoom ñoo yàqamtiwul loola. am na nag ku ma gis. Mhm. mu def tey benn post nee na Ousmane Sonko ci ab assemblée bu bees la fas yéene defee li nga xamante ni moo di déclaration de politique générale maanaam même tey ji bu dee indi nañ ay coppite ci li nga xamante ni moo di règlement intérieur bi teral moom fasul yéene jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk. jamono jile dañuy xaar ba ñu tëggaat assemblée bu yees mu doog fa dem taxaw amal li nga xamante ni moo di déclaration. waaw man de li ma jàpp mooy. assemblée xel mën na koo nangu. mooy assemblée bu bees mu mérité ko fa defee dañ koy tas yeneen député yi lan la doon jëriñ muy muy teg ci ci yi. ngir ñu li nga xamante ni moo di règlement intérieur bu yees laa Sonko mën naa am ci assemblée bii lay dem man li ma jàpp laa man kañ dégg naa DPG am pare na bu yàgg te day dem. mais li nga jàpp nii. bu dee la ko defee. non lan la doon jëriñ waxuma ne noonu non xam nga balaa ñuy juger lan la doon jëriñ mooy mu ne du dem ci bii. d' accord léegi xaaral ma reformuler sama question. si toutefois li nga jàpp nii. waaw am noonee noonee noonee la mbir bi tëddee. lan la doon jëriñ kon tey ji pression ba mu teg ci député yi ngir ñu indiwaat règlement intérieur. baax na ndax bu boobaa bu beneen bi ñëwee it buñ ko deful mise bi tam du ñëw. waaw ah, mais yooyu la député ba ñuy ñoom it procédure yi ngir indiwaat règlement intérieur bu baax bi doonte ne loolee mooy lu war ñoom it dañ ko doon def plus pour Ousmane Sonko amal li nga xamante ni moo di déclaration de pression bi leen waay gi teg moo tax ñoom ñu accéléré ma doog a ñëw su ko neexee parce que xam nga règlement da ko war a mettre à jour ci kaw ngay ñëw ak boo ñëw loola yoon ndax même bu ñu ko mettre à jour yeneen député itam bu ñëwee ils seront obligés. mais loolu su amee cheikh bi. dafay dëggal ka ni moom dëgg-dëgg dafa ragaloon ja dem assemblée janoo ak groupe parlementaire ko benn et autre. mën na bañ a nekk mën na jàpp ne assemblée bi amul légitimité wala mérité xam nga politique lu ragal maam calcul la. dangay ngay calculer sa DPG ci ban assemblée nga ko bëgg def impact bi nga bëgg nan nga bëgg mu déroulé wu mun nga jàpp ne adéquat wul ak ñi fi nekk nga tëggee ko neneen mais de toute façon ñoom Sonko sax warul leenoon wax ñu mettre à jour seen règlement bi ñoom ñoo waroon nekk ni toog waxtaan nañ ko mettre à jour. nous sommes d'accord. Sonko ñëw bañ a ñëw Sonko ñëw bañ a ñëw prétexte la rek mais règlement bi dañ ko war a mettre à jour. ndax Sonko mi nga gis cheikh bi. Mhm. jàpp nga ni ba tey. ku war a mun a ñoo def si déclaration de politique générale parce que depuis loolu nee na pat noppi man sax pat pataalul Sonko tamit jaaxal na ma temps man li ma gëm. waa ji dégguñu ko mu wax de te daal ko seen muy tàggatoog. li ma gëm ne mooy am. ak li may ak li ma jàpp ne. Ousmane moom lan la moo gënoon dafa war a dem li ma gëm mooy day ci ci kanamu assemblée bi def DPG. defaale tam état des lieux li mu fekk ci réew man lool laa jàpp ne moom lay def. sama intuition loolu la ma gën a jox tey li ma fortaatu it loolu lay def mais li ma jàpp ne moo gënoon mooy mu bàyyi ba beneen assemblée ñoom. d'accord léegi Ousmane fan yi lu muy noppi moom. moo xëy na stratégie la xam nga nag Ousmane moom mënut a nekk jëwriñu réew mi ba pare bu waxee ñu ne li muy wax dafa bëri mi ngi gêné Diomaye bu noppee ñu ne li mu noppi dafa bëri. avec Sonko doo xam foo ko Sénégalais yi déclassé ba <laughs> ci dossier yi. Chape jot nga benn xibaar. mooy ban. ma laaj la ko peut-être yow nga gën ma ci am ay information mooy loolu nee nañu Sonko jot na gisee ak ñenn ci ay influenceur am ndax daal nee na leen euh, ay temps ñoom avant ñu accéder au pouvoir ñoom ñoo gënoon envoyer li nga xamante ni moo di réseaux sociaux yi mais gis nañ depuis un certain temps tendance bi mu commencé di changer. lu am na waa am déet. mais remarque boobu def nga ko wala tendance bi dafa commencé di changer. non non seetluwuma ko. côté présence ci réseaux sociaux yi. non non gars yi. nañ ñoom bañ a accéder booy bi bi bi bañ gungee gars yi bañ a accéder au pouvoir rek après dañoo lâché prise. yëguma ko te du ma ko desee gëm xamalu tax coordination amul ci influenceur yi yi faral Pastef fu lay nekk ci réseaux sociaux ku nekk da ngay bay sawar man xam naa ñoo xam ne ñoo nekk Twitter. dominer ko téye nii amuñu benn lien ak waa Pastef amuñu benn lien ak l'appareil politique de Pastef compte yi gën a Twitter amu ñi ci ëpp amuñu benn lien ak parce que am na koo xam ci man la jaar pour xamante yenn responsable xam naa nit ñu bëri yoo xam dañ daan def fi sabili la loolu moo nekkoon force Pastef c'était pas lu organisé contrairement nag APR dafa woon c'était organisé que ñoom nañu def ñoom it comme Pastef Pastef li cëpp bénévolat la woon tey sénégalais yu am moyen man xam naa koo xam ne combat Pastef yi def na ci ay millions kenn xamu ko grand bu xola grand bu effacé ay millions def na ko ci combat Pastef kenn xamu ko xam naa benn jëwrin. wala <laughs> bu nekk <laughs> li mu def ci xeexu Pastef bii. gaw ma ne bëri nañu ko ca def kenn xamu ko utul dara mm. musta wax ak Ousmane musta bindante ak moom musta échanger ak moom xam naa ko baax a baax ay millions def na ko ci combat bi ay loolu xam naa ci ay góor xam naa ci ay jigéen biñ jàppee Ousmane Sonko xam naa ñu def seen alal fekkewu ko ngir Sonko génn kas ci luñ yaakaar ci luñ jàpp loolu moo nekkoon force Pastef en fait Pastef du du les militants Pastef c'était les sénégalais loolu combat sénégalais la woon maanaam pas ñëpp li ëpp ci sénégalais ñoo jàppoon ne combat bi noobul na dëggu na ñu def seen alal seen temps xoola amuñu benn man xam naa koo xam ni mais mën naa dund ba dee du ñaar Sénégal bi ndax teraanga